jàll ci leneen wax ci actualité bi ak euh, lu jëm ci euh, coalition yeeg locale yeeg niñ ko dëgmalee euh, yeewi askan wi ah yeewu askan wi yeew yeewu askan wi la tudd non ñoom yeewi lañ noo ñoom yeewu askan wi lañ tudd lu tax nga tuddee leen yeewu askan xam nga danoo am fun toll mhm. ñu am fun jaar ci histoire politique mhm. kon tey nan la ñooñu jëmmi ñu dikkee taxaw naan ay yeewi askan wi Ah, xanaa kay dañoo bëgg a yeewaat askan wi. c'est quoi le problème ak jëmm yooyu. non attends c'est pas jëmm personne individuelle wala euh, ki véritablement laa leen di wax mais ci politique. Hmm. ci politique ñan ñëw composé. ah ci politique Ousmane Sonko. mi ñëw kan ci bees. waaye kooku nga waaw <laughs> man xam naa kan mooy Ousmane bees ci lan. a ah, mooy leaderu Pastef. ma ne koo xam ne jaay na terrain fii ci alma ci ci yoox ba tàyyi ñu lijjanti ko man maag moom ñu lijjanti ay terrain mu jaay ko ci yoo xam ne ay mécanicien ko moom. xam nga dafa am yoo xam ne man bala may bëgg a dee nit ñi di wax ñun xamante ne bu ko gaawal dama ne la dama ne la Ousmane Sonko à l'époque Seydina Ousmane Sonko ma ne Seydina Ousmane moom mu ngay wax wala musi musiba sonk moom mu ngay wax musiba Sonko dama ne la hmm. am nay terrain yu mécanicien yi amoon ci grand lu fi nga xam ne mooy euh, euh, hangar bi hmm. terrain yooyu ban ko amee moom moo nekkoon syndicaliste bi nga xam ne nekkoon na domaine bureau bi Vincent la xaw ma nan la tudd. mu nekkoon fa ci bras am. boobu Amadou Ba fa nekkoon tey bu Ndiaye ñoom. terre yooyu ba mu ko liggéeyal sept terre la moom moo jaay benn ba ca dañ ko ko dédommagé xam nga dafa am yoo xam ne ah, bu doon lu dara la ne askan wee tax a jëg jamono yooyu dana dana jëg commission mooy commission mooy lan kon kay moom mi xeex commission day lekk commission comme ñëpp yàgg na ko lekk ah sëñ bi nag loolu nag. waaye dama lay laaj moom déedéet moom day xeex commission. Mm. ñii lekk commission da leen na waruñu ko lekk système bi lay bañ. de dama lekk commission waruñu koo lekk. Mm. ndax réew mi la moom pourquoi mu lekk commission man xam naa gis naa commission bu mu lekk. yow da ngaa jënd bi da nga. fekkee mu fi may wax de mécanicien yi danoo am danoo nekk di liggéey ci place. Mm. place ba état bi bëgg koo jël. mécanicien yi bañ a génn. Mm-hmm. ñu di ko doon liggéeyante moom ci boppam. ñu jox ko ci ab terrain ngir lan. aw askan mu dem di leen lijjanti ñu ñu koy fay ab terrain ku noonu nga jàpp ne yow loo ko mën a wooy ci wax na da ngay bañ commission da wax ak dox la rek ah wax la def la kon mu ñëpp koy commission muy man sëriñ bi sax bu ma ne oh, a waxal ñi la ñooy comme Guirassy yi wala dama ne la Cheikh Bamba Dieye dama la Cheikh Bamba moom taalibi la mënumaa wax ci moom lu bari waaye ñi nga wax ne ñoo ko jiite moom mm. bu ku mel ak ak ñeneen ca dëgg dëgg dëgg dëgg ñoo xam ne ay commission nangam ca maire ba ak nangam ak nangam yu ni lekk mm. kooku moom ku leen di denc ak kees waxi nopp kon di nga valider beneen coalition bi nga xam ne mooy PDS bokk gis-gis ak euh, jot na no ñooy xam nga moom di nga ko valider xam nga toujours du ma ne danaa ko valider parce que li may gëm ba gëm ko am réew mënut a ñàkk ay opposant mm. parce que moo koy stabilité mooy indi stabilité am réew mm. waaye ñoom ñoom ñoo gën a xam ne président Macky Sall moom ci boppam liggéey bi muy liggéey Sénégal kenn ku ko ku toll ci fu toll nii war koo mën a remplacer amagu ci amagu ci ñoom. non doo ci boole Wade. déggoo li ma a wax non Wade man. Wade kay jeexal na Wade kay ñaanay non Karim man Karim dafa dañ ko gis woon ci réew mi nan xaar ba gis ko ci réew mi mooy di am solo waaye li ci wóor mooy kenn ci ñoom ku xalaat ne. Mm. ku xalaat ne ah Macky Sall pare na gun amagut. tey it mbir dafa desee na na ñoom nan yëngatu rek. danañ ñëw sax si Macky Sall mais xam naa ne doo ko waxee ci mbàkke bi mbir mi des na de ci kanam la mais doo ko waxee ci parce que président Wade fii moom titre foncier am la non mais xam nga titre foncier te euh, la tuddal la coalition yooyu yëpp tey hmm. bala nga wan a dégg ne man ñoom li ñu def gëm nañ ko ñu nekk benn coalition nan nekk benn coalition xam nga coalition bu dëgër mooy coalition benn bokk yaakaar hmm. ñaata at la Macky Sall tey ko xoolal boobu euh, la ko téye. Mm-hmm. ñaata nit ci nekk ci ay leader yoo xam ne kenn ku ci nekk ci yow waxuma la dara waaye Senghor musulaa téye lu yàgg Abdou Diouf musulaa téye Abdoulaye Wade musulaa téye Macky Sall téye leen nangami at. Mm-hmm. kan mu ñis ñoom ak ñeneen ñi nga xam ne làqu nañ bëgguma leen a tudd ah yàlla na leen yàlla yërëm. Mm-hmm. mais boo xoolee ñi fi ne tey Macky Sall téye PS. téye ak yeneen parti pendant ay at kenn yëngatu mais nañ ko tasu kenn yëngatu laa wax loolu mooy coalition bi am solo hmm. mais coalition yi moom hmm. salaamaaleykum yeew yi waaye yeew askan wi wàññi ko na tasar ah foofu moom doo ci boole gëm sa bopp bu buggaan gay kan non non xoolal day théâtre kooku day théâtre moom kooku nañ ko bàyyi day fi day théâtre moom non la grande coalition gëm sa bopp la grande coalition man daal bu ma sañoon jàll keneen ma bu ma sañ mu jaat ci keneen. ah bugaan nag di léegi ci keneen rek nañ moom na gunge ba ci kanam rek. na kan la a gunge. Ah, kon da ah. ngay da ngay xa yow da nga bokk si ñu naan pion président Macky la. Ah, ma wax pion la. lan du ma wax pion la de. bi yaa ngi man de man de dëgg-dëgg du ma wax ne pion la waaye mas na maa fekk pale benn yoon de. waaw fekk pale benn yoon de ànd nit ku nekk conseil président. foofu daal laay li ma wax moom xam na man xam naa. li ma dégg nga ne ma mas na maa fekk pale ànd ak ku ñuy wax Isma Dioum wasalaam bu président. déggoo fi may waxe yow de. Bougane Gueye dama laa wax ne la mas na maa fekk pale ànd ak ku di wax Isma euh, Isma Dioum foofu laa yem waaye li wér ci wóorul mooy ay peon président la président soxlut ay peon. président ci jëbi boppam soxlut ay peon. am na ci ñoo xam ne nii ma ne am na ci ñoo xam ne damaa ne nan lu ne pour am président président soxluwu leen ca man xam naa ci dara. am na ñoo xam ne président soxlawul leen. Ah, am na ñoo xam ne soxlawul leen man daal man la a wax néew ma la ma ci wax lu leer naa ñi dama ne la fekk ku wax Isma Diop foofu laa jëm avant 2019 wala élection yi. waaye dama ne man daal li ma la wax avant élection 2019 yi la kon man ay bëggaan ak wax waxuma leen. Hmm? li am solo ci am solo ma di la ko wax mooy. gaa yi wax yi wax ci kaw lañ koy wax waaye bokkut li ñuy wax ci suuf de. kon ñooy ñaan audience ci suuf. ah gaa yi daal bokkul ñu leen wax Macky daal moo tëj bunt yi tey da tekk. Mm. waaye gaa yi nga daw góos ak droite fu ne ñu fay jaar. mais ubbil na ko Idi. ak Mburoog ah, Sow waaw Idi de ubbil na ko kon ndax bi Idi demee ba nangu dogalub suñu borom. Mm. nangu ne yàlla jox na ndam président Macky Sall. mu nangu dogalub suñu borom ñëw na jébbalu si ñu ubbil ko bunt yi. Mm. waaw ñoom ñëpp ci loolu lañ jëm yaakaar naa non non loolu moom du ma ah, ko d'accord seetaan rek bari nañu idi dafa see dafa am dafa sincère ci kaw nii def ko rek de waaye bari nañu jébbalu ci suuf ñoo xam ne lan la président waxoon ca Thiès da nga ko fàtte hmm, fàttali ma ko ah, ana Gloria egsee gun na gisaguma ko ah dana xaaral tuuti Gloria waaye bu Gloria ñëwee bëggu tuuti sukkar wanee ciy tege <laughs> kan mooy Gloria dama ne xam naa ne ku xam-xam nga dama déggoo fi may waxe yow de ana Gloria xam nga fii jamono am na jamono yoo xam ne fii ci sama saal bi laa toogoon na leen idi noppeem gi dana ñëw hmm, hmm. am na ay organes yu ma ko defoon ba nga xam ne ba ma amee émission ci benn télé maag gumba la dama ko waxoon mhm. na ko idi dana ñëw di noppeem gi waaye maa ngi lay wax fii ne président taxaw na mhm. ne Gloria ca Thiès mhm. kenn gisagut Gloria Gloria dana ñëw waaye man xam nga lu ma ci tege sukar wani sukar wanee ngi ñëw waaw léegi en attendant Gloria ban teen la yor dafa ñuul dafa xees fu mu bokk non nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi ci mu nekk ci diggante xàll xeereer nañ ko bàyyi ci xeereer rek waaye sukar wani moom sukar wani bu ñëwee ku ñuul kukk lay doon ah sukar fan yi dafay ah, yëngu ah, kon gloria day xees mel ni Karim xeere man daal tudduma xee Karim xees laa wax xeereer xeereer laa wax baatu wolof la léegi Karim Wade ci boppam man sax sëñ bi yow man dama waroon a ñëw sama kado waaw ndax yow ba ñuy njëkk def émission yow laa jëkk a def sama doomi baay ah, bul ci sori Karim Wade ñoo bokk baay comme ni ma xoolal waaw déedéet xoolal danaa la wax benn secret dama lay dama fi nga jëm <laughs> Karim Wade tuddee naa ko doom. waaw Karim Wade maag moom ma nga nee toog. Mhm. Karim Wade maag maag moom ñoo bokk benn benn baay. Mhm. ca la ma ko doxalee mooy danoo bokk benn baay. Mhm. seq ko seq ko la rek ma def ko. amul lu ma ci regretté. ndax tey fii kër gii sax ma rafet am na fe ak Aminata ak keneen ak keneen. ak Aminata Tall man yëmu ci Karim Wade rek de. samay relation politique ni mu jaxasoo ci noonu laa koy doxalee. kenn ku ci nekk xarit googa nekk ma seet la ma doxalee ma parce que ay doomi aadama lan ñun ñëpp ay doomi aadama doon ay sëriñ lan euh, dama ne la Aminta ko jiitu Aminta ngi sama kër gi moo jiitu am waaw ci booba kenn waxatu ko kenn xamutoon ban man année la mhm. kon dama lay wan ne la samay relation politique mhm. du Karim rek ci nekk ci kër gi mhm. ma ni ma demee ñoom ni ma amee ay relation sëriñ di leen tuddee ay doom am ay relation xarit noonu laa ko amee ci politique bi